dal leen ak jàmm mbokk internet yi ab oustaz saay-saay wala sax ab saay-saay buy mbuboo wàllu oustaz di jëf ay jëf yu doy waa ànd ak loolu di jaay man niw waa ji mu ngi wuyoo ci turu Mohammed Habibou Gueye ñu ràññe woon ko fa ci wàllum oustaz ak njàngalem alquran foofulee ca quartier Touba am waaye ca ginnaaw oustaz wala jàngalekatu alquran boobu la saay-saay bu mag moo ca làqatu yàqaankat ak sax ab góor jigéen dëkkee di profito di ñàkk xamu xale yi ba di leen sàkku di tëdd ak ñoom def ak di leen defloo ay mbir yu doy waar bubbule oustaz bu bubbule saay-saay daf daan wax xale yi ñu summeeku ba set laata muy siq ak ñoom mbiru saay-saay yooyu le te saay su nga xamante ne jot nañu euh, pare moom Mouhamed Habibou géey daf daan dajale seeni man niyu di ko dajale ci benn pot ngir mën di ko jaayi yenn ci ay xërëmkat yi file ci Sénégal wala sax ca Mali ndax yooyu le xërëmkat bu ñuy defar seen yenn ci ay saafara dañuy soxla man yu xale yooyu le lii lee nekk lu doy waar moom saay-saay bile laata muy feeñ jot na ko def ñu bare bari ñenn ci ñoom jot nañu indi ay seede ci anam bi nga xamante ne jot na ko jaaree ba nax leen a jëfandikoo leen ginnaaw tungu ne du teew ñuy nataala nañu àndandoo déglu li kii le wax di xam la ne daf ko sëyloo ak moom te doon ko jaaree ci ginnaawam gannaaw loolu mu boole ko ak yenn ci ay xale yi nga xamante ne ñoom la nekkaloon waa joojulee ànd ak ñoom waaye bi mu noppee dafa daal di dajale mbooleem maniw bi nga xamante ne génne na ci ñoom daal di koy def ci ab récipient maanaam benn pot bu muy faral di dajale yooyu le maniw par rapport ak cas bi la ma ci doon soumettre par rapport ak euh, Habibou Gueye boobu ñuy wax Mohamed Habibou Gueye waaw dafa ñëwoon si ñun il s'est présenté comme étant un marabout un un bu waaw oustaz lañ ko mën a wax ndax suñu booy yi majeure partie bi ku si mën lire mën si jàng alxuraan moom moo la ko jàngal. ñeen nañi moo leen may téléphone may leen puce ñeen nañi moo leen jëndal ay vélo ñeen nañi moo leen fayal jàng ba heure bi am na ñoo xam ne moo leen fayal jàng lu baax lu nekk def na ko mais ginnaaw si loolu ndaxte li mu doon def yooyu yëpp dafa am lu mu si làq maanaam mbirum góor jigéen mbirum abus de confiance sax mbirum escroquerie ah mbirum contre nature lépp la boole woon ndax ay xale yoo xam ne ñu ngi am 11 ans xam la bi ñuy def ay CM1 en 2004 nga di leen tëddee di leen di diw seen taat yi ay diw di leen tëddee. ba boo paree tëddee leen na leen bu leen bu ko wax kenn pare jox ko ay sangat ndaxate sangat yi mu lay jox yëpp mu ngi tëj sa gémmiñ di la jox ay saafara na laan da jàppale sa jàng ndaxate li mu lay jox yëpp mu la koy jox si base ba nga xam ne da la koy jox pour tëj sa gémmiñ pour nga xam ne doo mën a wax dara sa yaay pour yow loolu sax doo sañ a toogaat keneen di ka ka wax te bu defee loolu ba pare ndaxte mu ngi toogaat faneen di waxtaane naan yow da ngay dund loolu donc pendant toutes ces années mu di ko def ba ku nekk ñu demee ba heure bii la ku nekk commencé di si conscient ñu siy waxtaan suñu biir di si waxtaan suñu biir ba nekkoon kii yoon nañu dem porte di ko plainte ndax ginnaaw bi mu koy def bi koy def nit ñi dem na ba di ko imposer nit ñi di ko def seen biir tam en sa présence nag mu taxaw bu ñëwee mu ne la mu ne kii summeekul jox ko affaire mu dem sangu ji bu sangu jee ñëw tëdd si laal bi bu tëddee mu ne la yow summeekul moom mooy commencé jël taatu kooku def si diw ba pare ne la ñëwal boo ñëwee mu ne la acca dem si ba ba nga éjaculer mu jël sa sperme def ko si benn pot raxas si ndox ne dafa soxla sperme dafa am lu mu si defal da nga si am ubbeeku yu mel noonu noonu daal la dëkkee woon ak ñun boo yu bëri mu di leen ko def di leen ko def ba jamono ma kenn mënu ko wax kenn mënu ko wax ñu bëri kenn wax mënu ko wax bi ñu demee nag ba lii am si lañ porté plainte biñ porté plainte dëgg dëgg yéeme na keneen ci ñoom di wax ne moom moomulee bi ko waa ji di def lii mu ngi amoon ci lu toll ci fukk at ak ñaar waaye bile saay-saay di mbubboo turu ustaas daf daan foowe ay awraama ba waa jilee daanoo mu daal di jël mboole maniw bu génn ci moom dajale ko def ko ci ab pot. Hmm, hmm, hmm. waayin waaruwu leen keneen ba tey ci ñooma di wax ne moom moomu leen li ko itteeloon moo doon tekki ci jamonoom ngir mën dimbali ay wayjuram ci noonu ci la ko ustaas boobu leen nax xamal ko ne ngir mu mën koo dimbali ci loolu loolu mu bëgg faw rekk waa ji daal di koy jox man yi woom ca noonu la ànd ak moom di sa yëg moom ca ginnaawam ba noppi jàppi awram yam di ko foowee ba daal di cay génnee maniwu bi mu dajale def ko ci ab pot jeexul ba tey keneen ci victime yi nga xamante ne jot dañu yëkkati ay kàddu seede di xam la ne waa joojulee di Mouhamed Abibou Gueye di bubboo turu oustaz ak jàngalekatu alquran moom itam jot na jaar ci kawam ana la ko doon def waa ji di wax ne daf ko doon tegal ay vidéo ak i film pornographique maanaam ay film saay-saay yu ñuy wane ay tubaab ñuy sëyeen ci seen biir ba noppi yemu ca mu daal ànd ak ñoom bañ ca noppee itam mu def na woon fa woon daal di dajale maniw bi nga xamante jot na génn ci ñoom ñooñu le yi kenn xamut lu mu doon bile oustaz dey daanaka lii lee ba mu ko dalee def ba léegi yàgg na loolu depuis 1992 la ilaha illallah lu ëpp ñaar fukki at laa leen wax ko doon def di ko di dal ci kaw xale yi di def lu doy waar noo ki yàq na xale yu bari waaye jamono jilee yoon teg na ko loxo ba caabi féeteeku ginnaaw li ñu ko toppee ba jàpp ko nag du dara lu dul viole sur mineur maanaam sàkk gu muy sàkku ay xale yu tuuti pédophilie ak détournement de mineur maanaam di yàq ay xale ànd ak loolu ñu ngi koy toppee itam acte de contre nature ak charlatanisme maanaam jëf bu safaanoo ak li nga xamante ne moom la ñu xam ci réew mi ànd ak loolu itam wàllum liggéey ak sëriñtu waaw këy li leen naan kuy naan di làqatu boo mandee feeñ boo ab ustaas wala jàngalekatu alquran ba pare nekk di def jëf yu doy waar yi moo taxit lu waay rendi sa loxo lay nàcc jërë ngeen jëf